bëgg naa ñu dugg ci investiture yi coow li mu mhm. créé laataa ñoo ñëw ci wax nga ko léegi ci opposition bi bi ngay wax nag waaw waay bi ngay wax nag gis nga celui qui fait des affaires affaire boo mënti def et que tu n'es pas avec l'État sache que tu n'es en train de faire des choses louches que tu sois du côté de l'état wala nga nekk ci beneen côté bi ndax état mooy réguler lépp. Hmm. booy def dara di ko làq état kay xamal ne yaa ngi def loo xam ni teguwul ci yoon ku teguwul ci yoon nag bu buñ la jàppee ñi teg la ci yoon. est-ce que teg nañ ko ci yoon. kan moom. waa à la hauteur de acte bi su fekkee nii li ñuy jàpp maanaam nit bu defee euh, jéeya nga recherché ko ba jàpp ko boo ko jàppee teg ko ci yoon jébbal ko yoon yoon def liggéeyam maintenant délits yi muy def en fonction des délits yi mu doon loolu nag dafa am ñeen ñoo xam ne ñoo ko gën a xereñ gën a maîtriser code pénal bi gën a xam ni ñuy jugé que muy côté magistrat yi. non ñun waxuñu loolu ay bu ñu indi ci affaire yoon ak yu ñu yoon parce que bu doon loolu la doo fi toog. ñun xam nañ ni amoo xam-xam ci wàll wi. ñun bu ñu la wax mooy yéen a bokk langum politique bi yéen a bokkandoo di dem di ñëw ku mel noonu jëf jooju mu def laa wax est-ce que dina aider ci yéen image bu ngeen bëgg a renvoyer sénégalais maanaam cette bonne gouvernance bu ngeen ñu vante jaay ñu ko ba ñu fal ci le président Macky Sall te bu ñu gisee de l'autre côté gis nañ ñoo xam ne ñu ngi amee yeneen taxawaay te ñu ngi jëm ci local yi député yi ñu ngi war a ñaan ci ñoom ñu ngi war a lever seen immunité parlementaire loolu yëpp ndax trafic de passeport diplomatique xam naa ne nag li lay gën a intéressé nga bukkee wax mooy ñaari yanamaari si yi nga xamante ne ñoom it laal na leen ci mbirum passeport dinañ ci ñëw parce que ñoo ñoo gën a féeteeg du ma ne bi mais wan nañ benn farouche opposition bu ñu wan le ah, président Macky fii laa leen def waaw. te xam naa ne ak ñoom moom am nga fenn bokk. non dama lay mais le cas de Bougazelli boobu. cas de Bougazelli dama lay xal. mais xaaral gis nga Bougazelli day boole cas wu Bougazelli boole waale yeneen cas aussi wax ñu ban gis-gis la ci am. ndax levée immunité parlementaire député yooyu nga xam ne dañ leen a boole ci affaire passeport diplomatique dafa jël temps te pourtant am na fi ñoo xam ne bu ñu defee benn délai bu ndaw lever seen immunité parlementaire day doon lu gaaw. waaw léegi retardement bi ci am. lan moo ko waral. mais àddina moo dem àddina moo demee noonu am na ñoo xam ne seen mbir daa gaaw am ñoo xam ne seen mbir yéex. mais lu ci mujj rek dégg nga yoon lañ koy teg seen mbir gaaw seen mbir yéex te mi jaar ci loxoy état ci loo bokk kon état bokk ñi seen mbir gaaw wala ñi seen mbir yéex man loolu àddina la mbir gaaw ah. laa bëgg ñu muy nekk comme ci côté opposition bi nekk comme ci côté pouvoir bi mais ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk. ci pouvoir bi teg ci yoon. merci beaucoup gaaw ak yëpp nañ ko teg ci yoon ñu yëg ñu koy teg ci yoon. vous êtes vous êtes au courant de la justice. a adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale pour ñu lever l'immunité parlementaire. waaye ci diggante bi laa wax daa yàgg. loolu gars yi gaawal ko nii. yéen ah. yéen yéen les sàll la man Ablaye Gueye man man Ablaye Gueye maa gën a yàkkamti yoon def def ci yam c'est une chose y a un de ces députés moi Sall Sall moi j'ai travaillé à Kédougou j'ai travaillé à Salémata man bi muy doon député foofu ak président conseil départemental fala la ma fekk. Hmm. ñoom ils ont renversé effectivement le maire Khalidou Ba qui était euh, maire de Salémata. ah oui waaw am na ñoo xam ne nii gis nga l'APR n'était pas aussi fort à Salémata am na ci ñu bëri ñoo xam ni c'est des députés par défaut. maanaam bu casting bi bu bu APR amoon doole foofu dëgg dëgg dëgg dëgg doxal parti bi ni mu waroon doxalee foofu noonu ñenn député yi du ñu génn doon député. kon Sall mi ci député par défaut yi la bokk. non man je le man je le je le député par défaut xam nga député par défaut mooy lan. mooy ci ni ma ko jàppee. su fekkoon ni le parti était très développé à Salémata mu ni mu waroon doxee mu doxee ko. ah comme ni muy doxee à dakaar comme ni muy doxee ak feneen la concurrence bu fekkoon la concurrence loyal ma nga fa woon bu teg woon ci yoon dinañ gis yeneen cadre yoo xam ne nii ñoom ñoo ko gën a valeur parce que li mu def àggut lu dul ni mu toll ah oui ni mu xalaate ak ni mu toll rek la def nit koo xam ne nii yàlla sagal na la ci lu ne président Macky sagal na la def la ñi def la boole la ci liste nga doon député yàlla def na ñëw nga dugg nga dugg assemblée nationale ñu jox la ay avantages yi ñu war a jox nit ñëpp. Hmm. bàyyi la sa poste aussi euh, nu mu tuddati conseil départemental président du conseil départemental loolu lépp nga yor ko. loolu lépp tegoo ko fa nga jàpp nit ki di ko gàcceel nekk fa di def ay ay ay ay ay faux pas naa fa dégg fa ñëw naa kër gu ñu naan moom avant avant problème yi ah. Hmm. parce que man je n'imaginais jamais que ni lii am na ah. hmm. ñëw naa fa benn jour ñuy maay waxtaan ak gars ñu ne ah yéen seen copain bi yéen waa APR du ngeen dara seen député baa ngi nii keroog la fi takk benn femme nii ah del femme bi ko France nag pour man des histoires de de mœurs ay affaires yooyu je je encore ñu waxaat la yeneen gaaf mu def et cetera et cetera dama naan non daal na ndekete hmm. loolu lépp liyee ko umboon ndekete takk yooyu yëpp takk yooyu yëpp c'est de faux mariage léegi affaire bi éclaté laa ne akkee kon kii lii mu doon def nii ak lii nii kon lii moo indi lii. waa léegi moom bu nekkee député à défaut Macky sagal ko sagalul boppam mu ñëw toroxal Macky kay looloo waroon a tax nag. affaire bi gaaw non non toroxalul Macky boppam la parce que soo nee. Ah, moom ci nit bu la sagalee. dafa gàcceel parti bi rek. nit bu la sagalee parti bi la gàcceel mais boppam la toroxal ko. non parti bi la gàcceel mais boppam la toroxal. waa léegi moom bu gàcceelee parti bi. waaw xanaa kon foofu la parti bi waroon taxawee nag yëfam gaaw. parti bi yorul justice. parti bi yorul justice Benno Bokk Yaakaar yorul justice ci yenn dossiers yi. APR yorul justice. yorul ko ci yenn dossiers yi justice su boppam la. dossiers yi nga xamante ni bëgg nañ mu gaaw mi ngi gaaw. non soxna si. si si si ku ci nekk sa mbir di doxee ci. bàyyil affaire mbir mbir daal ku ci nekk mooy ñi nekk ci état bi. seen mbir yéex ñi fa nekkul seen mbir gaaw. Mm. Bougazelli man li ma bëgg. Mm. sincèrement ce qui se passe ñaaw. trop dafa ñaaw ku waxul ni ñaaw na. bëggoo yëf yi nekk fi di wax naan ay lii ak laa loolu noonu c'est caresser le truc du sens des poils lu ñaaw la nañ ko teg ci yoon mu jeex tàkk. alors léegi ci investiture yi est-ce que jàpp ngeen le président Macky Sall li mu nang li mu leen di wax xaar leen ma déglu leen ma loolu aussi est-ce que. Euh, war nañ ko mën a nangul noonu. c'est-à-dire da ngeen bëgg mu gaawaat quoi comme ni ngeen di bëgg yëpp di gaaw wax ni. Hmm. un un parti nag président gaaw quoi Benno Bokk Yaakaar soo hmm. ne hmm. c'est un parti euh, de démocratie. ah dañu war a encourager la compétition mhm. dañu war a mën a bàyyi nit ñi ah moo xam leader yi ku ci yaakaar ni mën nga aay nga mais nga organiser lu mel ni ay primaire ci gox goxaati yi. Mhm. ñi woote woo yëpp askan wi arbitré militants yi naka noonu ba am kenn ku génn ñu xam ni kat kii la. Mhm. mais xaar nga confectionner list am ñoo xam ne léegi dañ koy xotti bu ci gis seen bopp gis nañ léegi li xew tey presse mu ngi koy xëyee. Euh, fële ca Mbour on nous dit Issa Sall pour la commune Macky moom la tànn bu dee département bi mu ngi fa yóbbu euh, l'autre là comment il s'appelle encore euh, turam mu ngi may rëcc. Saliou Samb Saliou Samb mhm. justement am ñeneen ñu commencé casse te bokk ci coalition bi moo xam mooy parti PS ak ya ci ajo parce que ñu jàpp ni yéen à la limite da ngeen foqale parce que jàpp ngeen lu xew rek lu am rek yéen APR yéen ci yey cest à ci investiture yu ñu jëm li ñu gis mooy ni boo moyul Mm-hmm. waa ji mu am consensus comme ni mu ko bëggee. d' abord euh, d' abord le problème le problème général. da ngeen bëgg lépp a gaaw. mais même l' investiture au niveau de l' opposition. mais munu laa wax ne la diw bërëb sàngam diw moo fay candidat. au niveau de l' opposition coalition yaa ngi fi kon ça veut dire que y' un temps boo xam ne nii ñun ñëpp dañ koy euh, politique bi da koy suivre. Mm. gis nga nag ku euh, laa wax ne la les investitures là sont simples ndax naa la. Mm. non c' difficile. parce que dans chaque commune il une opposition effectivement boo xam ni en dehors de l'opposition classique il y a une opposition interne am na ci yenn maire yoo xam ni bañ leen falee lañu am opposition lépp ci biir parti bi lépp ci biir coalition bi te am na ci ñenn ñoo xam ni tey néewuñ ci coalition bi newuñ ci parti te effectivement ñooñu ñi ngi jàppale président Macky te ñi ngi ci ay mouvance yoo xam ne nii dëkk bi ñoom la ñu àndal il faudra prendre tout tout tout tous ces paramètres nga intégrer ko pour def un choix boo xam ni ce sera un choix gagnant jëlal euh, supposons allons à Xombol allons à Xombol. feefu ministre de l'intérieur. waaw mais soo demee le mouvement appel à l'appel de Xombol avec euh, Magay Boy mais ñooñu tey la quasi totalité dëkk bi ñoom lañu àndal te moom. effectivement mënoo ko mënoo ko classé ci APR mënoo ko classé ci Benno Bokk Yaakaar mais président lay jàppale loolu tey jii nii yow loolu boo ko doon kii nan nga koy dugale ñëwal ñëwal ci. maanaam est-ce que loolu da ko fay bàyyee di tànn ku mel ni ministre de l'intérieur pour mu jiite liste. non man man xombal dëkkuma fa. dafa dama lay dama si ci li ngay wax. waaw voilà juste comme comme des gens. Ah, pour laaj la quoi hypothèse euh, yu mel noonu. parce que ay schéma lay doon xam nga lu tax man président gis nga la contexte politique actuel ak enjeu yi nga xam ni dafay am pour mën a jëm ba ci élection 2024 yi ah doon na ci tey nit boo ko yónnee sax bu mu dem def ci ay investiture moom ci bopp xam nga yow nit mënoo ko gën a xam nit ku dëkk ci gox bi mënoo ko gën a xam goxam hmm. tey on on envoie des inspecteurs ne leen dem leen ngeen régler le problème de là-bas yow nan ngay régler un problème boo xam ne yow ña dëkk sax ñoom mënuñ ko régler loolu man j'invite le président de la République à donner la voix à la base na bàyyi nit ñi ñoom ci seen bopp. ñu hmm. def un choix judicieux. kon yow àndoo ci le fait que ñu ànd nañ déglu président mu def liste. mais mais président il n'est pas censé effectivement def lépp d'une manière très correcte président day déglu nit ñi rek te ñi koy waxal ku ci nekk da am say intérêt. ah oui ba ci ñi koy informer. ñi koy informer ku ci nekk da am say intérêt gis nga tey euh, Pape Ousmane. Hmm. bari na ñuy wax ci turam de vous êtes un éminent chroniqueur macha allah dama lay gis ci télé yi dama lay gis ak autorité yi xam nga bu baax li ñuy waxee ci pénc li ñuy waxee ci mbedd li ñuy waxee ci néeg ak nooy waxee ak buur ñii ku ci toog ak buur sa intérêt nga koy wax même su ma koy wax sa waxi Pape Ousmane sax naan ko Pape Ousmane mi ne xamal ne sama intérêt la doon ndax Pape Ousmane su ma la waxalee yow ba sa yëf jàll ci président mais yow dootoo ma bàyyete ci yoon. Hmm. boo ma jàmbuwul. moo tax man leen même les côté des investitures là ak les commissaires politiques là ñu ci bari je dis au président na bàyyeeg askan bi ñu jël seen i kàddu. bañ a wóolu trop commissaires yi. ñuy ku ci nekk sa intérêt ngay dox. ah kon daal Pape Ousmane maanaam commissaires yi dem sur le lieu des fois mën nañoo pencher du côté de x ou y selon. après rentabilité bi lan la koy jox. même kon daal politique dama lay iskeel daal dama lay iskeel même même xool lépp daal. même si tu fais intérêt lay même si tu un jugement boo xalaat ne c'est un jugement cohérent nga jël ay données ci ay données ngay basé wu rek te données yëpp yow loo fekkewul la am na loo fekk am na loo fekkewul am na lu ñu lay nettali looy dégg lu la nit ñi di wax li ñu lay wax loo xam dëgg la lu ñu la wax looy xam du dégg kon dafa bari ay segments yoo xam ni dans leur dans leur reportage de l'information. entre ce ce que tu mm. rapportes. du benn déperdition de l'information. d'accord euh, léeg-léeg nga même schéma yu ma koy laaj mu wax ma ci mm. xalaat. bu la neexee ñu dem ci commune bi benn par Dakar Dakar parce que xam nañu ni Dakar quand même jommal na leen. Mm-hmm. Euh, dañuy agité ñaar ci ay tur. Mm-hmm. Euh, ku mel ni ay Amadou Ba. Mm-hmm. ku mel ni Abdoulaye Diouf Sarr. même bu fekkee Mame Mbaye Niang nee kenn mënul fexe ba du du doon moom. waaw loolu moom ñu ngi koy dégg mu koy wax fu mu tourné mu ngi koy wax dama xamul nag léegi ci choix kan nga jàpp ni moom la président di gën a jiite pour Dakar pour que mu wóor que ni waa euh, maanaam bu ci génnee dina ci am ndam. man nag gisaane du ma ko def. waaw non pas gisaane mais je veux réalité politique soo ma waxee réalité politique ma waxee ne ma réalité politique. kan nga jàpp ni moom la président di tànn. Hmm. yàlla may la ma man <laughs> ci xelu président. mais yow boo sañoon ku ñuy tànn kon. kon gi ci ñaan doon Dakar gi. ki président bëgg. ah yow ki mu wóolu. na ko tànn ki mu tànn ku mu bëgg ku ne Dakar man moom laa ne gis nga ñii. coow léegi yow soo nee na président tànn ki mu bëgg ak ki mu wóolu. soxna si kon kay yow wax ji nga waxoon ci njëlbeen ne. président na bàyyi. ñi nekk ci gox yi. xam ñan fa war a teg. waaw kon loolu daal maanaam yaa ngi juyoo ak say wax xam nga yow le problème est très simple. xam nga bu gox bi tànnee dañ naan président ki lañ bëgg. mais gox boobu noonu boo ko permettrewul ah. mu tànn ci dans les règles de l'art comme ni ko Fatoumata euh, Tall di waxee Fatoumata Fatou ministre de de la jeunesse ah. mu ne nañu organiser ay primaires parce que moom dem na ba gëm boppam ni golf moom moo fa teg tànk te golf ki maire actuelle bi mu ngi ci benn bokk yaakaar elle est socialiste de l'autre côté ñu ngi gis ay Lat Diop te ñoo bokk ak mm-hmm. eneen regret mu ne bu ñu organiser woon tey primaire mm-hmm. euh, mbiri ci loxoom lay tàbb pourquoi favoriser wu leen yoon bu mel noonu. Euh, je le dis qu'on organise des primaires dans les localités pignotane. je ne suis candidat en rien. d'abord pour hmm. ñëpp mën a xam ni hmm. man muy Kaolack ga nga xam ne fa laa milité sax fa la ñuy mujjee de. waaw Kaolack kay dañ fa dugg fa la ñuy mujjee muy Kaolack gi ma milité sax. Hmm. je ne suis candidat en rien là-bas. mais dama lay waxal tey gis nga dans ces élections là. ak dans ces investitures. y a beaucoup de triche. ah oui. y a beaucoup non au niveau de la coalition y a beaucoup de triche xam nga lu tax. tey dama yeewu gis revue de presse revue de presse euh, fii nii ci benn commune bu nekk dans la dans la région de hmm. journal bi titré ñu ne xaw ma lan Benno investi déw déw xaw ma lan mobilisation nangam sangam yàlla xam ne ni gis nga fa kooku ñu wax nañu ko investir hmm. Hmm. soo demoon ci meeting ñi ko wax ñu investir maanaam soo xaymaa ni ñëpp nii motuñ sax ay cinquante ah en même temps au même moment nit da nga fay def meeting boo xam ne meeting bu jommal ñëpp boo xam ne dañ doon fay nit ñi nii pour ñu yegg ci kaar yi en même temps nit a ngi nekk sir le terrain di def ay ay ay visite de proximité léegi nga yeewu rek ku ci nekk ñu titré la c'est de la triche et c'est des yoo xam ni uniquement yooyu noonu su fekkee ne yow mi nga xam ne yow yaay régler zone boobu soo jëlee ces éléments effectivement tu fait une mauvaise analyse parce que basée sur des données qui sont te loolu bari ci gox yu bari ma du gox yu bari benn bokk yaakaar lu bari dafaa bari gis nga ñii di wax naan ay maa fi nekk ak bopp ak affaire yooyu. gis nga coow li moo bëri rek. fii ku fi yor doole mag Sall la may doole. Mm-hmm. ku fi yor doole. may buur di bumi muy ku fi yor doole gis nga. te coow te coow lee bari sax. gis nga coow lee bëri. la mm. ñii di wax nii ñëpp di mm. ah. Mm. bu Macky rocci woon récépissé Benno Bokk Yaakaar ne waaw garaawul na ñëpp dem duma ci mere kenn téye seen poste yi dem leen. ñu ci bëri dinañ ànd par force ndax ñoo dem. ndax ku nekk boo wéetee xam nga sa bopp xam nga li ngay peser xam nga li nga attan xam nga li nga toll. coow li moo bëri rek c'est des question de positionnement am na ci ñoo xam ne nii ñi ngi wax man la man la man la yeneen position lu ñu bëgg. am na ci ñenn ñoo xam ne nii effectivement c'est eux. ah mais dañuy ils ont une démarche boo xam ne moom la ñu doxee su président nee ñoom la ñu xam ne ñoom la bu dul ñoom it ñu wan président ne ñun la. parce que ce qui s'est passé ci yeneen élection 2014 yi. Hmm. ils ont investi des personnes dans certaines communes yoo xam ne ni ñooñu euh, dañ leen atte ñàkkal dañuy dem wan président ne ko nag atte nga ñàkkal mais affaire bi ñun la jël yëf yi ba pare. mooy seen liste parallèle. waaw ti ko pare ñëw président ànd ak moom loolu dina amaat fii ren. ah oui dina bëri ay liste parallèle. mais bien sûr. ok ah, même ba ci Kaolack ah même ba ci kaw mën naa amaat même ba ci Kaolack. waaw Mariama Sarr. waaw noo gisee gestion am ñii nekk Benno Bokk Yaakaar yëpp. Hmm. coow a bari ñemewuñ Macky Sall. ah. mais Macky Macky Sénégal c' le meilleur président d' Afrique. <laughs> et c' le maire président des partis politiques. c' est un fin tacticien c' est un fin technicien c' un fin politicien. lu tax nga ne ñemewuñ ko ñii nekk fii di wax nii di balbalu nii ñëpp nii. c' est des éléments que Macky Sall a formé a concocté et a aidé au moins à être significatif. maanaam bu xëyee na leen nopp da ngay mais yow bi nga xamee loolu nga ne léegi da nga mettre en berne say activité ànd ak Mimi Touré lu tax engagé woo auprès de Macky Sall nga ànd ak moom koon bi nga xamee ni c'est le meilleur président africain waaw li may def ni lan la déedéet li ngay def nii plaidoyer la rek. li ngay def nii plaidoyer la. mais yow mais c'est de l'engagement nga jàpp le ah. plaidoyer ça fait partie de l'engagement. mais àndoog yow fi mu ne nii àndoog kenn yow da ne léegi yow ci sa ci sa ci say activité personnelle. Ah. ci nga nekk. dama ne la ci sa liggéey nga nekk xam nga lu tax man su ma liggéey du ma joxe dépense. ah kon am na ñu dul liggéey te ñu ngi joxe dépense. ah waaw am na ñoo xam ne. di jàpp ay ñoo xam ni ñu ngi nii di def di di di di def ay di takk jabar six fase am ci benn 4 millions loolu est bokk na ak liggéey mais man damay def nii su ma liggéeyul du ma am. te liggéey boobu mën nga koo seede aussi ci kenn koo xam te ne tey ñu ngi koy tudd aussi ci Y'en a si di kilifa. non àgguñu foofu mais dama la expliquer pour ñu mën a. pour pour ñu clore chapitre bi nga nekk noonu. non kii daf ñuy dolli temps. Hmm. déedéet <laughs> du ñu dolli temps dañoo bëgg ne. Mm-hmm. yow ah, ku nekk xam naa parce que war nañoo dugg Kaolack. waaw dañuy dugg xam sa proximité waaw xaaral defal ndànk ñu wax la defal ndànk gis nga yow. man je suis dans cette dynamique unitaire boo xam ne nii président moo fi nekk président la ñuy jàppale. Mm-hmm. jàppale ko ci kaw bëgg-bëggam man. ba ma jógee ci Mimi Touré ba léegi tàyyi naa di ànd ak nit bu may jéem a féodaliser autour de sa personne <laughs> tàyyi naa ko xam nga lu tax mm. parce que ça revient à la même chose man ni ma sonnee woon ci Mimi Touré ni ma doxee woon ci ak engagement bi ma amee woon ci moom gisatuma effectivement temps boo xam ne noonu ak force yooyu